kon sëñ Mbàkke Buso ñu déglu ko moom it di imaam ci masaalikul jinaan di ak leer ci sëriñ Cheikh Awa Balla Gueye mii ci daaram la génnee sëñ kon sëñ imaam Mbàkke Buso bismillah nga reeral résultat yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi di jéggalu yàlla sunu borom bi tabaraka wa taala ndax doomu aadama matut di jéggalu mbokk yi fi teew yépp di jéggalu sunu candidat yi bu ñuy jéggalu nag rafet njort lool ci ne njuumte mën naa am ci àtte bi waaye jubluwuñ ko woon ci biir loolu candidat tolloon nañ ci fukki candidat ak ñeent bu ko defee ñuy tànn di tànn ba mu des juróom waaye nag seetlu bi ñu ci def mooy fukk yooyu ak ñeent amu ci kenn koo xam ni si rawe nga sa moroom fanweeri poñ kon nga xam ni kon mbir mi seere na baax na juróom yi nga xam ni si ñoom lañ tànn danañu wax seen tur ak seen sant ak région bi nga xam ni si moom lañ dëkk Sëriñ Mouhamad Fall dakaar ñoom ñoom la ñuy nattaat ci biir natt boobu ci la ñuy génnee première ak deux ak trois ak quatre ba cinq ñoom xamaguñ ci ñoom dara waaye mooy ñi nga xam ni ñoo at mi Serigne Mohamed Fall Dakar mi ngi nekk Seras moom biñ ko nattee li ñuy laaj lépp am na ko muy mi adaraja téeméer. kii mooy candidat bu Ndakaaru maanaam ndawal lay jaay Seras. Seras fii la nekk mooy sëñ Mouhamad. aywa sëñ Mbacke Bousso. bu ko defee ñaareel bi sëriñ abu Jaxate Thiès sëriñ Abou Jaxate dëkk Thiès moom mooy ñaareel bi bismillah moom it nekk commerçant mhm. ñetteel bi sëriñ Abdul Ahad Jaw Jurbel ñeenteel bi sëriñ Kéemaan Gay Tamba. Serigne Kéemaan Gay Tambacounda moom di jaay accessoire lu jëm ci wàllum téléphone. juróomeel bi sëriñ xaadim jaxate Kaffrine sëriñ xaadim jaxate Kaffrine sëriñ xaadim jaxate dëkk kafrin moom mooy juróomeel bi kon ñii ñooy dem finaal ñoom la war a xayma ba tànn ci ñi nga xam ne ñoom la war a décorer bu soobee yàlla ci kàttan suñu borom yëf yi xam naa du yomb de kon mën ngaa tàmbali sëñ Mbacke Bousso ñu jublu ci liggéey bismillah nañ jublu ci liggéey bi rek mu gën a gaaw kon candidat kaay leen ngeen jëlaat kenn ku nekk na ñëwaat tànn benn laaj bu ko defee la muy laaj rek mooy doon ay bu soobee yàlla li suñu ustaas wax nag ni yéen gars yi seen question yi daa jafe de di leen ko woyofal yéen it sëñ Kéemaan Tambacounda Tambacounda ayo bismillah Thiès baax na Mouhamed Fall Dakar bismillah boo jël baax na sëñ Kéemaan Tambacounda bismillah sëñ Jurbel Abdou Lahad jaw Jurbel bismillah baax na ayoo kon sëñ Mohamed mën ngaa tàmbali question yi Abdou Lahad Diaw Jurbel Kaffrine kon sëñ Mohamed mun ngaa tàmbali question yi kon ñu njëkkanteeg waxtu bi incha allah am na ñu ñu fi war a décorer nag mooy ñi nga xam ni génnoon nañu réew mi demoon ci ay jongante alquranu karim ba suñu borom def ñu am ca ndam ñooñu incha allah dinañ leen décorer fii ci jotaay bu soobee yàlla incha allahu kon suñu Muhammad kon kan mooy njëkkee kon nag ñi ngi ci final bi ñi ngi ci final bi maanaam fukk ak ñeenti raison yi suñ borom def na ne juróom-ñeent lañ ci tànn am na ñoo xam ni wax naa leen ko fii dinañ leen décorer ngir alxuraanul karim ndax ñoom dañoo demoon représenter Sénégal xanaa représenté Sénégal de moom ci alxuraanu karim ku ko def wàcc nga ndax benn bis damaa wax Bachir ñuy dem Ziguinchor ma ne ko man kay li may sant yàlla mooy lii bu doon ci mooy yàlla lay doon ñaata bàkkaar laa war a am moom daa jooy maanaam ku représenté sam réew ci génn bitim réew ñu ni looy représenté nga ne alxuraanu karim gàcce ngaalaam rek lañ la war a wax. kon ñii war nañ leen fee décorer Serigne Alhaaji seex Dia moom moo gañe woon concours. sëriñ Mouhamad Gaye moom war nañ koo décorer sëriñ Abibu Diop moom it war nañ koo décorer incha allahu soxna Ndey Jaara Ngom moom it war nañ koo décorer soxna Ndey Zeynabu Ngom moom it war nañ koo décorer soxna Ndate Siise incha allah war nañ koo décorer soxna Ndey Buso Jatara moom it war nañ koo décorer ak soxna Xadi Daraame Louga moom it incha allah war nañ ko décorer ah jigéen ñi lii de jafe na xam na ñii ñu fi lim ñëpp de ay soxna la ñoo xam dañu représenté woon Sénégal ba noppi indi ndam fii ci réew mi kon sëñ bi bu fekkee pare ngeen jury bi mën ngeen a reprendre incha allah sëñ Kéemaan ana sëñ Kéemaan mi ngi ci public bi laaj bi ma mujjee dugal ci alxuraanul karim moo ko tontu te dama ni woon ku ko tontu waxuma la am na beneen Kéemaan ana Kéemaan Kéemaan ana moom sëñ Kéemaan waa kay kii mooy sëñ Kéemaan damaa laajoon ab laaj ci alxuraanul karim mu wër Sénégal gépp waaye moom la yàlla def mu njëkkoo tontu laaj bi dama ni woon baat boo xam ne juróomi yoon rek la ñëw ci alxuraanul karim ci juróomi saar yi wuute waaye baat bi boo wàññee araf yi ci nekk day nekk juróom benn araf baat bi tamit ci ñeenti yoon yim ñëw ci alxuraan yëpp da ngay fekk ca biir laaya ba baatub allahu te xarafuk nun lay jeexee benn yoon képp la ñëw ci alxuraanul karim te jeexewul baatub allahu te it xarafuk nuun jeexewu ko mën ngaa baamtuwaat tontu bi acca bismillah ban baat nga waxoon yuhyikum mu ni baatub yuhyikum la kon tàccu leen ko mbokk yi acca indil ma juróomi laay yi nga xam ne ñëw na ci alquranu karim bismillah auzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwaatan fa ahyaakum summa yumiitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعوكم لما يعليكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وهو الذي أحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور ثم إنسان لكفور الله الذي الله الذي الله الذي أحييكم ثم يميتكم allahu la si xalaqakum su ma suma yoxyeekum summa yumiitukum uh, hal min surakaaykum ma yafaxal min saalikum min sayin subhaanahu wa taala amma yusrikoon macha allah yàlla yàlla barkeel am na ñoo xam ne ñu mewuñ public waaye moom moo ko tontu woon kon ñu ngi koy décorer fas yéene koo jox aca cinquante mille am teen ni waaw dafa bokk ci liggéeyu conte bi mooy semaine bu nekk dañuy dugal question boo xamante ni question bu jafe la ci alxuraanu karim moom mii nag daa bokk ñi ko tontu ndax dañ ñëwoon ku ko tontu rek cinquante mille mooy sa cadeau looloo waral lii jury yi boo leen paree ñu songu finaal bi kon bismillah sëñ Mouhamad kan mooy njëkk a ñëw Abdoulahad Diaw Jurbel ana ñi ànd ak sëñ Abdoulahad Diaw Jurbel Abdoulahad Diaw Jurbel ana ñi ànd ak sëñ Abdoulahad Diaw Jurbel waaw ngeen dimbali ñu tamit ci déglu bi moom da koy dimbali dimbali àttekat yi ndax alxuraan lu dugg rek ñoom ay machine lañ leneen lu dugg rek da leen di rungeloo moo tax kon bismillah sëñ Mouhamad sëñ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 wa yatuufu alayhim wildaanu muxalladuuna isaa raaytahum asibatahum lu'lu am mansuuran wa isaa raayta samma raayta naxiimaw wa mulkan kabiiran xaalihim siyaabu sundusin qudru wa istabraqu wa ullu asaawira min fiddati wa saqeehum rabbuhum saraaban tahuuran inna haza kaana lakum jazaa wa kaana saxyukum maskuuran inna naxnu nazalna alayka alqur'aana tanzilan fasbir li xukmi rabbika wala tutic minhum aasiman aw kafuuran waskur isma rabbika bukratan wa asiilan wa min allayli fasjud wasjud lahu wa sabbihhu laylan tawilan inna haulaai yuhibbuna alajilata wa yasaruna waraahum yawman saqilan nahnu xalaqnaahum wa sadadna asrahum wa isa sina baddalna amsalahum tabdilan inna hadihi taskiratun fa man saa attaxasa ila rabbihi sabilan wa ma tasaauna illa an yasaa allahu inna allaha kaana aliman hakiman yudxilu man yasaau fi rahmatihi wassalimina aadda lahum asaban aliman أهل البلاد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب سغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك قل فمن يملك لكم من الله شيئا ننا أراد بكم ضرا نوراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينخلب الرسول والمؤمنون ilaa ahlihimu abadaw wa zuyyina saalika fi qulubikum wa sanantum sanna sawi wa kuntum xawman buuran wa man lam yumin billahi wa rasulihi fa inna ahtadna lilkafirina sa'iran wa lillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yashaa'u wa yu'adhibu man yashaa'u wa kana allahu ghafuran rahima jërëjëf jërëjëf ana waa Jurbel ana waa Jurbel allahu akbar allahu akbar aywa ku ci topp euh, xaadim jaxate Kaffrine ana waa Kaffrine ah déet ana waa Kaffrine sëriñ xaadim jaxate Kaffrine bismillah salaat bu njëkk muhtiina ila daa yaqulu kon mbokk yi ba tey ñu ngi ci final bi kon kii moo représenté Kaffrine incha allah question yi nag daa xaw a bari faaw ñu koy segg gars yi nag dañ la woyofal seen question yi nag daa jafe de bismillah muhti'ina ila ad-daa' yaqulu al-kaafiruuna 'asir a'uudu billahi mina ash-shaytaani ar-rajiim muhti'ina ila yaqulu alkaafiruuna hada yawmun asir kaddabat qablahum qawmu nuuhin fa kaddabuu abdanaa wa qaaluu majnuunun wasdujir fa dacaa rabbahu annii magluubun fantasir fa fataxnaa abwaaba alsamaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarnaa larda cuyuunan faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir wa xamalnaahu ala daati alwaaxin wa dusur tajri bi ayunina jazaan liman kaana kufir fa kayfa kaana cadaabi wa nuzur wa laqad yassarna alqur'aana liddikri fa hal min muddakir kadabat qawmu luutin bin nuzur kadabat caadun fa kadabat caadun fa kayfa tajri bi ayunina jazaan liman kaana kufir wa laqad taraknaaha aayatan fahal min muddakir fa kayfa kaana cadaabi wa nuzur wa laqad yassarna alqur'aana liddikri fahal min muddakir kaddabat caadun fa kayfa kaana cadaabi wa nuzur إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا jërëjëf jërëjëf sa ñaareel bi laaj wa kadalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qaala mutrafuha audu billahi min alsheytani irrajim wa kadalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qaala mutrafuha inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim مقتدون قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون baax na mën ngaa dellu sa place ñu ngi woo sëñ Kéemaan sëñ Kéemaan Guèye Tamba sëñ Kéemaan di jaaykatu accessoire nekk candidat bu Tambacounda bismillah sëñ Kéemaan bismillah sëñ Kéemaan Gay Tàmba salaaj bu njëkk qaala maa manaaka allaa tasjuda ida martuk qaala ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin audu billahi min alshaytaani rajim قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرجنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدليهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناديهما laajub ñaareel inna yawma alfasli miqaatuhum ajmain aoudu billahi min alshaytani irrajim إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة السقوم طعام لثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقيهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون jërëjëf ah macha allah macha allah sëñ Kéemaan ah waa Tambacounda seen candidat bi préparé ngeen ko de macha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar macha allah lii rek mooy mooy mooy mooy lu baax macha allah sëñ Basir yàlla na yàlla fay la yiw sëriñ Abdou Samad Mbacke ibnu sëriñ Chouaib Mbacke yabal na fi doomam sëriñ Mouhamad Mbacke ngir yitte ji mu am ci li nga xam moo di concours bi aussi seenu teleem bi nga xam moom moo ko yoral boppam di As-Samadiyya ñi ngi couvrir journée bi ngir mu gën a wesaare wu ndax moom daa bëgg lu baax lool macha allah jërëjëf Cheikh Bassir yàlla na yàlla fay la yiw kon sëñ Diène ku ci topp kon ñuy sëñ Abo Jaxate Thiès sëñ Abo Jaxate Thiès ana waa Thiès allahu akbar sëñ Abo Jaxate bismillah bismillah sëñ abo sa laaj bu njëkk wa inna minhum la fariqan yalwuuna alsinatahum bilkitaabi li taxsibuuhu min alkitaab wa ma huwa min alkitaabi wa yaquluuna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluuna ala allahi alkasba wa hum yaclamuuna ma kaana li basarin an yuutiihu llahu alkitaaba walxukma wannubuwata summa yaqulu linnaas كونوا عبادا لي من دون الله ولا من دون من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه تدعون jërëjëf laajub ñaareel wa ida massa nnaasa durrun daaw rabbahum munibiina ilayh wa ida massa nnaasa durrun daaw rabbahum munibiina ilayh summa iza izaqahum minhu rahmatan iza fariqun minhum bi rabbihim yushrikuna liyakfuru bima ataynahum fatamattahu fasawfa ta'lamun am anzalna alayhim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wa iza asaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa idh asabahum sayyi'atun bima qaddamat aydihim إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي jërëjëf ah, macha allah sëñ Abo Jaxate ku ci topp macha allah alquran neex na allahu akbar allahu akbar allahu akbar Cheikh Basir yàlla na yàlla fay lay yiw ci teraanga gi ñu defal ngir liggéeyal alquranu karim képp ku kuy nit daara de bégg kontaan nga lii rek mooy li baax lii rek mooy li am solo jury bi boo leen paree rek. waaw sëriñ Mouhamad Fall Dakar. sëriñ Mouhamad Fall ndakaar moom moo nekk Seras di fa liggéeyee Seras nag xam naa sekkee ni dinañ ko miin waaye tey moom alxuraan ko fi indi sëñ Mouhamad Seck sëñ Mouhamad Fall représentant région de Dakar bismillah ana waa Ndakaaru ana waa Dakar bismillah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 inna alladina amanu wa amilu salihat wa aqamu salata wa atawu zakata lahum ajrum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanun jërëjëf sëñ Mouhamad ñaareel bi laaj walaw jacalnaahu qur'aanan acjamiyyan la qaaluu lawlaa fussilat aayaatuhu acjamiyun wa carabiyyun qul huwa lilladina amanu hudan wa shifaa walladina laa yuminuuna fi aasaanihim waqrun wa huwa alayhim ama ulaayika yunaadawna min makaanin baciid wa laqad aataynaa muusa alkitaab faxtulifa fiih wa lawlaa kalimatun sabaqat min rabbika la qudiya baynahum wa innahum la fi shakkin minhu murib man camila saalixan fa li nafsihi wa man asaa fa alayhaa wa maa rabbuka bi zallaamin lil abiid ilayhi yuraddu cilmu saaca wa maa taxruju min samaraatin min akmaamihaa wa maa taxmilu min unsaa wa laa tadcu illaa bicilmihi wa yawma yunaadihim ayna shurakaai qaaluu aasannaaka maa minnaa min shahiid wa dalla canhum maa kaanuu yadcuuna min qablu wa dannuu maa lahum min maxis laa yasamu linsaanu min duaa alxayr wa in massahu charru fa yausun qanut wa la in adaqnaahu rahmatan minna min bacdi badarra masathu la yaquluna hada li wa maa adunnu saata qaimatan wa la in rujictu ila rabbi inna li indahu lal xusna jërëjëf sëñ Muhammad ah macha allah macha allah allahu akbar allahu akbar